fële. d'accord donc je pense que ni ñooñam dinañ ko déglu bu baax a baax. aywa dinañ ko dégg. ma jigéen comme ñu dem bitim réew am na daal loo xam ne nee na ñoom ñoom waa bitim réew moom la ñuy jàmbat yàlla bu mu fekk hmm. nag mu bokk ci consulat yi ñu duma woon gars yi taal ko waa hmm. waaw bisimilah asalaamaaleykum sëñ bi Diop maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu Sanjo bu may nga di nuyu ma jigéen Diop ah, Malick Fall la nekk fii ci Espagne Bilbao ñun dañu am problème mu passeport moom la ñu am ndax man euh, déposé naa passeport. avant mooy déposé am na sama benn xarit bu déposé woon <coughs> quatre jour la bosom jot mu génn am na ñoo xam ne déposé nañ ça fait un mois seen passeport génn nii deux mois génn léegi ñoom dañaa wax ni talon lañ amoon maanaam affaire bi ñuy defaree passeport bi sama xarit bi ma ko waxee ne mënu ma loolu dëgg parce que ay yooyu am na fa ñoom ñooy téye passeport jàmbur yi fi ñu toll nit ñi bëri dañuy bëgg voyage mais duñ mën a voyage ñu bëggoon a jàllale lii si jommet bi pour ngeen mën ñu see dimbali autorités yi dégg li dégguñu ndax ñu mun a wax gaa yi ñu joxe nit ñi seen passeport yi carte d'identité sax boo ko déposé mun ngaa toog un an laax doo see jot te loolu xam nga du dëgg du yoon passeport ku ko yor war see voyage yi munoo voyage yi xam nga loolu métti na ma jigéen talon daal bu fekkee moom lañ manqué nañ ko yónnee nañ leen yónnee talon yi ñu defar passeport yi <laughs> waaw sooy bu nag dëgg nag jox nañ leen ko ah. euh, nañ ko defar waaye bu dee dafa manqué daal ay setataal sàll consulants yi ne fële manqué nañ ay talons waaw bu dee nag talon daal yii la yomb na nañ leen yónnee ay talon <laughs> ñu am ay passeport waay ah mais damay wax eh, dama ne ah, loolu sax moo moo jaaduwul nag ñuy toog ba eh, ci consul bi muy am ay manquement yoo xamante ne nii sénégalais yi dañ koy faral di fa ko soxla yaa ngi wax ne mm-hmm. <coughs> jamono jii nii mm-hmm. affaire yi dina gën a manqué te sooy bu yàgg ngaa toog fii indi fi jomeen boo xamante ne nii ay mm-hmm. moodu moodu ñoo lay wax problème yi ñuy am ci ambassade yi ak ci consulat yi du lu du nekkul lu bees il faut que nag ñoom tamit ñu jublu bu fekkee ni dañu fa dem yàq fa sax nañu jublu ci seen yitte ba bu ëllëgee dootuñu amati benn yoon accès fu ñuy demee ba ba mer ba xel di dem ci consul bi ba ñuy dem di ko fa saccagé nañu fexe di taxaw seen i mbir bu boobaa bu ñu meretee dinañ am beneen taxawaay bu dul di dem di saccagé foofu dañu waxal di dëgg waaw euh, li nga xamante ne bi moom la wax de Aïssata Tall moom defe naa ni euh, jamono yee ci guerre ba nekkoon moom lu muy foog guerre non guerre bi ñu bi gars yi war moom lan la fi wut sax moom laa xamul ci loolu ba de defe sax de CEDEAO mujj na toog waaw nee na guerre tut CEDEAO lu la tiital alaaj CEDEAO ma gis réew si la na Mali bett Mali bett na ma de man li ma gis. Mali est-ce que lay malee ko moom. Ah, man de Mali Mali mii ku yebu seq ak ñoom jàmm man de bambara yi ma gis yëpp léegi man. man kay damay dellu damay dellu sama dëkk ma Mali gii. man yéen Mali kat damay dellu ñu yoo xamante man daay dellu arme yu mel noonu man mosuma daay dellu saa dëkk ma. yaa ngi mhm. Mali daal. Hmm. Mali daal dañoo jékki-jékki wàcce arme yoo xamante ni bii CEDEAO <laughs> nag xam naa arme Mali yi gis nañ ak Mali yi dal. ayca ñëwal waaw léegi ñëwal ci Malick Fall bëgg a bitim réew léegi nag xam naa nag boo tax ministre bi boobu comme bëgg woon ca guerre ba ba ba demoon kurtaay dafa tàmbalee soof. waaw ah. eh, ba waxoon ay waxam xam naa moo tax tëdd waaye comme que fi mu toll nii sëriñ ak guerre. fi mu xam naa dinañ bàyyi xel bu baax a baax. Euh, li nga xamante ni bi mooy sunu mbokk moodu moodu yooyu fa ñu fa ne ngir ñu taxaw leen bu baax a baax mm-hmm. donc defe naa ni Aysata fi mu toll nii tal mm-hmm. tal tekki nañ jàjj yi mm-hmm. fi mu toll nii ña ngay waxtaan waxtaan nag dafa baax mais talon lañ manqué neen talon waaw léegi nañ waxtaan nañ jéem a lijjanti ñi talon en Eh, nga xamante ni bi <clears throat> mbirum kii boobu moom guerre bam ñu teg ko ci suuf mm. parce que guerre bi moom musibal man guerre bi moom temps yee passé moom wax dëgg fa yàlla mm. eh, sony bu c'est parce que yaakaar naa ne poussière dong lay doon nag <laughs> ay wax la après day waaw mais c'est que bu mm. dangaa xoolut Mali waaw loolu dama ne non dama ne wax ji biñ naan CEDEAO day dal ci kaw dama ne loolu man poussière la rek laa ko jàppan parce que loolu alaaji dafa teewul fenn <laughs> mënoo président yu bokk ci yow di jalgati seen ay ay àqi réew mm. euh, bu ñu leen fa jëlee nga ne lu tax ñu leen fay jëlee ñiy reconnaître ñu a a yem rek yéen a moo tax ma ne CEDEAO da da doon sóob rek euh, daal xam naa ni macha allah Mali daal nuyu Mali bu baax émission yi sax léegi dañ ca war di nuyu waa Mali ah, fii laa doon yow alaaj ñaata lañ dugg nga ne ma yow ah. dëkkoo fi dañ lay delloo si dëkk ah, léegi kañ delloo suñ mbokk nga mbokk ndax Mali Mali ay mbokk lañ. macha allah tissu yu bari fa lañ koy ay gani laak yooyu yëpp. qualité ngay gis. malay borom macha allah Mali gii. ab dëkk la ab dëkk bu baax lañ. macha na leen yàlla jàmmal. yooyu ñuy essayé nag di sànni. Mm. dañ koy jubale fële. ay xarit lañ bu mu jëm ci suñu dëkk bi ay xarit lañ. waaw aywa yàlla def jàmm jaajëf moom min jërëjëf. jaa kon ba altine jàmm. incha allah jërëjëf El Hadj Sanjogu Mbeng jërëjëf ma jigéen Diop waaye jërëjëf mbokk yi doon déglu kon boog mi ngi noonu euh,